صلاة وسلاما وبركة تهب لنا بها سعادة لا شقاوة بعدها وأكبر ردا منك لا صوت بعده ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي barke Cheikhul Khadim mbokk jullit yi maa ngi leen di ziare maa ngi leen di nuyu ci turu mbokk yi tedd yi fi nekk turu suñu imaam di ko ziare di ko ñaanal suñu borom jàppale ko bu baax ba mu àggale mission turu sañ xaadim sañ kosom ak taalibe yu baax yi nga xam ne ñoo ma andi ak turu ñëpp daal maa ngi maa ngi ziare ñëpp ci turu ñu baax ñu fi nekk maa ngi leen di ziare sañ bas bi bi yëpp mënuma na ngeen ma jégal ma lim ma li ma limee damay juum waaw waaye ñëpp ku nekk rek ma tudd naa la ci sama làmmiñ sama xol maa ngi leen di ziare bu baax di leen sant ci doyloo ngeen ma doyloo ci liggéey bi di sàkku yi rek ngeen ñaanal ma ba eh, li ngeen ci bëgg lépp ñu def ko ci Euh, biñ ma ko waxee euh, dama xalaat euh, ndax man dama bëgg lépp lu may wax ci Serigne Touba lépp lu may wax rek ma jàng ko ci mbind wala ma dégg ko ci ku ma loolu bi ma ko xalaatee nag ci laa ne ci laa seetlu lu nga xam ne loolu dinaa occasionné wax ko fi mooy waxkat yi léegi dafa dañuy mel ne dañuy bindaat histoire te loolu lu doy ki maanaam ndax alquranul karim bi ñu koy dajale boo ñëwee ne aaye jii ci alquran la bokk faw nga indi ñaari seere ñu door ko nangu ba laxat ko mi amoon na problème hadis mi waxuma la ngay wax euh, maanaam hadis moom ay ay man jàng duma spécialiste ci loolu mais am naa ci ay généralité yu ma xam ci hadis nga xam ne waxin bi sax boo ci juumee duñ ko nangu silsila bi ne diw laa ko jële bu jëlee ko ci diw buñ ci xamee koo xam ne kii wax ka dëgg duñ ko nangu boo tuddee ku nga xam ne jamono te wut ak ñooñu duñ ko nangu waaw fi doolu xam nga waxi sëñ tubaa boo ko dégloo bu boo ko déggee rek boo boo xamee waxi sëñ tubaa xam ne li waxi sëriñ bi la ndax yax bi ni muy tëddee tax waaw mais ñu léegi boo seetee ci nun mu di léegi ñu bari ci ñun daa mel dañuy bindaat histoire ndax bu fekkee ne yow da ngay wax te ndax bu fekkee ne da ngaa bëgg a gis ku baax ku dul sëñ tubaa ci biir nit ñi maanaam nga bëgg a jël sa nit yow ah, di ko di ko di ko di ko di ko di ko ca di ko ca wutal daraja waaw fa nga bokk moo xam sa mbokkal la moo xam sa sëriñ la nga di ko ci wutal daraja wala yow la lu nga xam ne da nga ko bëgg baaxal ba créer ko loolu dafa bari ci wax waxkat yi léegi ñu nga xam ne seeni wax doo ko gis ci téere te doo ko mas a ci ci mag ñi ñu di ko defi kaset di ko te loolu yàq yàq histoire la waaw yàq histoire la te it amul njëriñ ndax ànd sëriñ bi moom yett rek lay jëriñ barke mbaa mbooloo baatin waaw bu fekkee ne ki ngay ki ngay yëkkatee ka eh, wutal daraja yooyu yëpp yàlla jox ko ci dara lu muy jëriñ waaw amul moo tax moo tax soxlawul am soxlawul moo tax ñun war nañ ci daal seetaat bu baax te waxal wàll yu lu nekkul itam lu dangereux la jullit itam nga dugal ko ci erreur waxal ko lu xam ne da koy gëm dafay dëgg la nekkut itam loolu itam lu danger la moo tax bi may bi may bi ñu ma waxee waxtaan wi te eh, man soxna si ni ma ko bëggee xameewu ko xameewuma ko ni waaw ni ma ko bëggee ni ma ko gëmee xameewuma ko ni te nekkuma Sénégal nekkoon na ci man problème waaye ma xam ne waxtaanu murit moom waxtaanu pël rek naga baax waaw <coughs> yomb na naga baax rek murit moom neel sëñ bi sëñ bi bi rek jeex na mu daal di baax waaw te loolu rek la ñuy wax bu waaw loolu rek la sëñ ñu ngi lay ziare bu baax euh, bu muqaddima boobu jàllee euh, Poroxaan xam ngeen ne Poroxaan ak euh, ak Nioro huit kilomètres bi nga xamee ne sëriñ si ñu ngi ñëw di fekk si sunu maam ma ba jaxu moom pour sàmm diineem ak sàmm yar njabootam moom moo ne maam ma ba man mënumaa dëkk ak yow mënumaa dëkk ak yow ndax ni ma bëgg a yaree sama njaboot mënuma ko fi yow léegi nag man na maa dem ba dànd la nekk foofu soo ma soxlaa woo ma wala altine ju ne ma ñëw ci yow wala bi sàngam daal bi sàngam bu ne ma ñëw ci yow ñu def noonu mu sanc mu sanc euh, euh, Poroxaan ba fala fala maam Cheikh Ibrahima feeñe jamono fala maam Cheikh Anta feeñe jamono ba e, maam Cheikh Ibrahima bi muy feeñ jamono daal dañ teg xeexu Paoskoto bi ñu yóbbu ko Njabakunda génne ko Sénégal ba fa lañ ko joxe tur moo tax ñu bari defe na foofu la gën a waaye mm, loolu nag daw googu mu dawoon ak njabootam ngir yar ah, tey feeñ na yaakaar naa boo comparé Nioro ak Porokhane Porokhane Nioro moo yilif Porokhane administrativement waaye bokkuñu waaw bokkuñu loolu nag loolu boo gisee ma di ko wax yéen nun ñi ne fii waaw nun ñi fii itam yor fi suñu njaboot itam hmm? war na noo xam nu nga xam ne la la maam waroon sel defoon daw njabootam làkku leen fi barab yow itam war ngaa fexe nu nga xam ne ci sa biir kër ci sa biir sa doom fi muy dem ak fi muy dikk nga nga topp ko topp nga xam ne la Maam Mor Anta Sali amoon ci njabootam boo ko amutul yow sa njaboot duñu sey fii loolu loolu ab am solo la ci ci ci ci dëkkub Maam Maam Maam Mor Anta ci Poroxaan waaw te moom la def Mbàkke Kajoor loolu tax mu jot ko loolu la tam bi mu nekkee Pataar waaw waaw loolu yëpp daw ak diineem daw ak njabootam ngir yar leen. moo ko ci yóbboon. loolu nag ñun ñu fii war nañ ko wala lu war a njëkk a jàng ci programme mooy loolu. waaw mooy nu ñuy def ba noonu Mamadou Sall defoon ba daw ak njabootam ba daw ñoom ba yàlla melal leen ni ñu mel ndax njaboot goo xam ne gi ñëpp ay awliyaaw lañu. waaw ñu Mamadou Sall Diop ñëpp ay awliyaaw lañu sëñ Tuubaa nekk ci seen biir di seen kilifa waaw te bi am na bu nga xam ne wax naak wax naag euh, euh, Maam Mor Anta moom sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu ñu waxee ci ma xam nga sëñ bi yàgg naa wax Maam Mor Anta Sali ngir bañ mu wàññi jaxasoom ak nit yi àdduna waaw naan bind bataaxal def ci xaalis teg ko ci jullikaay bi wala fu nga xam ne wóor na ko ne Maam Mor Anta Sali dana ko gis ba benn bis xam naa ne mm, booba am na ñàkkut lu def mu yónnee ci moom bi mu yónnee ci moom mm, joxe bataaxal maam Cerno Ibrahima la ko jox ne ko jox ko sa baay bi bi ko maam Mor Sali jàngee daal ne ko bu ñu sëlmali takkusaan ngeen ñëw fi sa waajur ju nee na bi bu la masaan yónni da koy laajaat wax nga ko mu lu mu wax mu ne bi mu jox nga ko mu am na lu mu wax mu ne na bu ñu sëlmali takkusaan ñu wusi dana xam ne yàlla kenn la waaw moom sëñ Tuubaa nee na laaj na ko borom daal ñetti yoon lu mu wax mu ne ko nee na bu ñu sëlmali takkusaan ñu wusi ko mu ne ko dana xam ne yàlla kenn ba bi ñu samay takkusaan ñu dem bi ñu demee bi ñu nee salaamaaleykum daal ne si ku baax ki Ahmadou moom sëñ bi Ahmadou lañ koy wax mu ne ne ko sama jaxasoog nit àdduna jaxasoog kaw rek ma la ciy jox firnde yow mi ma yàlla jox ngay sama doom te yow toogal ba ba ngay am doom ju mel ne yow ah. waaw daal tëju waaw. daal tëju bi ñëwee sëñ bi ci yar beeg diplomatie beeg mbaax gi li amoon lépp mu daal di koy cornet takk ko jox maam John benn ko demoon ñu tuubal ko waaw yaakaar naa kon moom lam doo maamado seen lam bëggoon am na ko waaw waaw te soxna si su baax su tedd si su sell si su maam ji maam jaara bi bi maam xam nga maam Mor Sali ku bari woon uh, jaamu yàlla la waaw bari woon jaamu yàlla la wérdu xaadir la yoroon uh, am na li atikaaf bu mu def bu nga xam ne ci biir li bi lañ ko xamal ne ku baax dana feeñ ci yow muy ku baax kii waaye soxna jaare mi lay jóge wax nañ ne loola am na lu mu soppi ci seen diggante ñoom ñaar mu soppi seen diggante soxna si ci ay jukkoom yu baax su nga xam ne man ci mbokki sëñ bii laa ko jëlee am na tawat jum tawat ju nga xam ne dafa dem faju ji moom maam jaara diir ba mu fa am nu mën a toll Mamadou Sall mu fa seeti ko waaye bi mu wéree moo ñibbisil boppam nee ak timis la rek ñu dégg ko muy yëngu fi jur gi nekk ci li xam ne ñëw na waaw nga xool nag léegi ku fi sa soxna joxoon ordonnance bu ca benn garab képp manqué benn garab bu ca manqué pot yem lay takkal loolu jigéen ñoo ko moom xool kooku nga xam ne tawat na nañu bi ci ay bokkam ay bokkam di ko faj kee musu ko ne ko salaamaaleykum waxuma laa di ko jox dara waaye ba mu wéree moo ñibbisil bokkam ba mu ñibbisee ñoom dañoo dégg mu yëngoo ko balee ko defar rek ñu xam ne ku baax ki ñibbisi na waaw tey boo bis buñ la joxe ordonnance nga yeex koo jënd walla nga manqué ca benn garab danga am problème te ni ko sëñ bu sa waxee léegi ñooñu fii lañu ganee àdduna nii la ñu defoon non lu ñu bëgg lu niñ doon dundeek mbaax gi ne woon ci ñoom ñu xam ko jéem koo jàng ba yow boo déggee loolu ëllëg ak si biir bu la sa borom kër yeexee jëndal ordonnance ah nga xam ne xëy na daa yoogut bu mankee manqué benn garab nga xam ne xëy na foofu la poosam yem nga muñal ko ba nga koy mën wala yow boo ko mënee lijjanti nga lijjanti ko te dugal ko ci yàlla ndax soxna si moom noonu la def na fa de ba fajul boppam moo bokkam ba wér bi mu waree mu ñibbil boppam waaw loolu ci muñam la bokk am na leneen lu nga xam ne itam ci histoire am la bokk loolu ci ñoom ñi laa ko jëlee nee nañ dafa ma sa dégg maam maam maam maam maam Dia maam wax dafa bëgg laaxu kuraay waaw nee nañ moom lijjanti na ba xam ba lijjanti na bi mu ko déggee daal moom lijjanti na ba togg laax bi bi mu ko toggee laaj ba mu ba mu noppee mu war ko ko yót moom boobu sant ku ko de da koo dégg rek xam ne bëgg na ko waaw day dàkk day dàkk bëgg-bëggam moom day dàkk bëgg-bëgg sëriñ bi waaw bi mu ko déggee laaj. ba bi nga ko déggee euh, lijjanti ba togg ko laaj ñu ne ko dem na xam nga nit ko ku dëkk ak moom da koy xam da ngay xam programme nga xam euh, ba sa euh, sangam te xam nga wirdu xaadir wi maam waroon sali dafa am ay julli yu ci am am ñaari julli dafa am ñaari rakkaay njël ñoo xam ne dañ koy julli am juróom benn rakkaay timis ak ñaari rakkaay yor yor loolu ci ci ci sarti wirdu xaadir la bokk léegi soxna si ne ginnaaw yoor yoor jotagul fu yoor yoor jote xam naa ne dana wàcc julli yoor yoor effectivement mu daal di koy takk ci kii yanu ko topp daal di seet fa la bi yoor yoor jotee Mamadou Sele wàcc mu yeewu fasam di julli yoor yoor dongo yi toog ne mu ñëw joxe ñam woowu bi mu ko joxee euh, euh, Mamadou Sele ba tey lekk ko xoolu ko sax daal ne dongo yi lekk leen ñoom buñ ko nettalee dinañ wax ne soxna si moom loola metti woon na ci moom defin woowu loolu foofu li nga fi jànge benn xoolal kooku fas fas la waroon fas la waroon ñaar euh, julli gi muy julli du julli farata julli yore du julli farata du waxtu yu juróom nga xawal nag ñun oto bu oto bi ngay dugg climatisé ko oto bu rafet waxtu farataw yàlla wi jot la amoo benn itte bu la bo boo dara loo war a xam ne lii jar na nga faat waxtu waxtu yàlla woowu doo taxawal sa oto bi wàcc jàpp julli doo ko def te kee fas la waroon fas te doon julli du farata waaye ba julli ko jotee wàcc na ndax lii sëñ bi wax léegi ñoom mënuy su ta mel ni ñoom waaye nga jéem a roy ci ñoom boo royee ci ñoom dégg nga danga danga danga da nga da nga da nga raw say morom waaw da nga amit loo foogu waaw benn ngoog xam nga benn bi mooy moom noonu mu def wàcc julli te loolu ñun ñu bari ci ñun duñ ko def wàcc julli euh, ñaareel bi mooy soxna si dàkk gi muy dàkk bëgg-bëggu ku baax ki loolu am na am na jigéen ñooñu fi ndolu dañ dañuy xam ne yow da nga amee suukar wala da nga amee tension doo lekk xorom wala da nga amee estomac doo lekk kaani mais loolu bu ñu lay toggal duñ ko bàyyi xel comme ñoom bëgg nañ ko dañ koy toggaale rek wala sa yaay bëggul sa yaay loolu baaxul ci moom ah, ah. mais kon xam nga ko kon ñoom dàkkuñu ki xam nga kii day dàkk bëgg-bëggam na koo dégg rek dem préparer ko yenu ko yóbbu kon kon kooku bu xamal ne li lu bëggut la du ko def te ki nga xam ne ñoom dañ ko dañ ko maanaam wér-gu-yaramam moo ko tere mu lekk kaani wala moo ko tere mu lekk xorom moo ko toggalee yow waxuma la ngay dàkk bëgg-bëggam waaye lorom nga far def waaw hmm? waaw waaw loolu itam lu mat a jàng ci moom la kon euh, euh, moom noonu la dundee ak Maam Mor Anta Sali fanweeri at ak ñetti itam la ñu wax ne moom la fi am maam Asta Waalo moom mu nga xam ne moom la sëñ bi wax léegi boo demee fi mu nekk ak fi fi fi maam ak Poroxaan sorewul naawel ak Poroxaan sorewul maam wax sawaalo boo demee ba léegi ña ngi fay jàngale alquran fa barabam waaw wax nañ ne moom ci boppam daan jàngale alquran waaw wax nañ ne bu daan jàngale day summi day sum day sol ab xaftaan ba jàngale ba pare euh, door a door solaat lim daan sol bu ko defee <coughs> Cheikh Mouhamadul Bachir radiyallahu anhu xaadimu rasul moom mooy borom poroxaan waaw sëñ sëñ euh, maam Cheikh Anta wax nañ ne moom la sëñ Tuubaa ma sa jox wurus wurus or ne ko na ko denc na nga ko denc ba wane ko jot ma maanaam ba def ko ba def ko ba ba gis lu jar def ko ca nga def ko ci nee nañ yor na ko ba ba mu muy nelaw gisut lu ko ko jaral mu jox ko sëñ Modou Mamoun ne ko lii de sëñ Tuubaa ma ko joxoon ne ma boo gisee lu jar def ko ci nga def ko ci sëñ Modou Mamoun yor ko ba mu yàgg mu waxtaan ci ak aw na leen man day damaa yor wurus wu nga xam ne sëñ Touba moo ko joxoon maam Cheikh ko boo gisee ko jar nga def ko ci yor na ko ba mii nelaw la ma ko jox ne ma ba yow itam boo gisee ko jar ndax man gisuma fi lu ko jar ñooñu ne ko dekkal teenu bi di nañ ni wurus woowu moom la sëñ Modou Mamoun jaay defaraat ci teenu maam jaara bee ca Poroxaan waaw loolu man ki ma ko jëlee ku ma doy loola waaw ñu defaraat teen bi mas na maa dem Poroxaan bu nga xam ne gis naa fa ku nga xam ne nee ma bi sëñ Bachir ñëwee Poroxaan première ñëwam baayam la fa fekk nee na baayam ànd ak sëñ Bachir mooy mooy mooy def ni seleen bi baayam may def ni seleen bi sëñ Bachir topp ci bañ agsi ci armée bi nee bi ñu agsee ci armée yi baayam moo ne moo sëñ fii mooy barab bi nee taxaw xool xool bant bi ñu fi samp xool garab bi am na mu doon xool xëy na ko sëñ bi ba mu yàgg mu ko waaw fii de na baayam ak sëñ Basiiru moo ñoo ñoo fàkk ñoo dindi ñoo ñoo ñoo nettoyé ñoo ñoo setal barab ba barab bu maam jaara daal ne ko lii de lee mu day waaw nee néeg bi sëñ Basiiru njëkk a samp poroxaan baayam moo ko jox nekk fa di muy demee nii ba ba ni sëñ Moustapha ñëwee ba école bii nga xam ne tey def nañ ko fa muy école Maam Jaara waaw daanee Maam Jaara parce que dem bi ñuy def reportage ci ci ci ci ci rajo bi ci télévision bi génne wuñ daara ji te daara ji daara ju am solo la ndax daara ji juróom benn téeméeri jigéen a ngi ci yu nga xam ne dañ leen di jàngal alquran di leen jàngal xam-xam di leen jàngal métier ñëpp ay maam jaarale waaw man xam naa soxna si nga xam ne ci kilifa ya la bokk muy soxna Awa Dem waaw loolu ci réalisation yi nga xam ne sëñ Moustapha Bachirou def na ko fa ci la bokk waaw ak jumaa ji nga xam ne taxawal nañ ko fi ak barab bi niñ ko defaraat barab bi daanaka boo gisee léegi àgg na dégg nga yooyu yëpp sëñ Bachirou moom mooy ki nga xam ne moo ko liggéeyal sëriñ Touba liggéey fa ndax sëñ Bachirou ci biir njaboot sëñ Touba yàlla da ko boole ci maanaam da ci am tawfeex spécial ndax sëñ bi bi mu ñibbisee ci géej gi sëñ Basiru la njëkk a gis ci njabootam bi mu jógee Ndar di ñibbisi avant balaa muy agsi nañ sëñ Basiru ca daara ja mu gis ko bi sëñ Basiru tolloo ci jàng xam-xam la sëñ bi nekk diggante Ceyeen ak Njaaréem mu nekk ak moom wax nañ ne sëñ Basiru bëggoon naa dem gànnaar sëñ Tuubaa moo ko ne toogal mu ne sëñ Basiru ne xam nga wéy ci ndigal euh, ñaari yoon ci histoire benn bi bi ko sëñ Tuubaa ne toogal ak sëñ Tuubaa bi mu bëggee dem gànnaar maa waroon sëli ne ko toogal mu toog euh, ginnaaw bi bi bi ñu demee ba euh, lépp ñëw la ne wéy ci ndigal te baax na ndax man su ma dem sëñ Tuubaa mooy wax loolu mu ne su demoon gànnaar lu waam ñu ne ci naar yi la ko jëlee sëñ Bachir itam bi ko sëñ Touba nee toogal nee dafa toog waaye nee na ku mu soxla woon gànnaat ñëw nga gane si sëñ Touba Njaareem wala wala wala am fa diir bu nga xam ne lu lu nekkoon ci yow ci xam-xam jàng na ko ba euh, dialecte bi gën a jafe xam nga naari gànnaar yi ay dialecte yu bari lañ am daal di bi ci gën a jafe nee señ sëñ Bachir mënoon na ko waaw. sëñ ci diir boobu mu nekkee nag ak sëñ sëñ Touba nee dafa am bu nga xam ne dafa dem. fekk sëñ bi daa fatu moom mu dem mu dem mu dem Saalum am kum seeti bi mu ñëwee bi ko sëñ bi laajtee ñu ne ko daa dem Saalum bi mu ñëwee sëñ bi ne ko fa dem mu ne mu ne ko Saalum mu ne ko dangaa bëgg Saalum sëñ ak moom mu ne ko waaw mu ne ko demal andi loo ma jox sëñ Tuubaa léppam day jaay demal loo ma jox ma may la Saalum waaw am ko jox sëñ Tuubaa may ko Saalum yaakaar naa Saalum moom lu fay murit tey ci moom la bokk waaw sëñ Basiiru Euh, sëñ Bachirou comme noonu ma ko waxee ci xaas yi ko su xam nga loolu xaas la ndax moom bi muy bi bi sëñ bi ñibbisi ci géej bi booba sëñ Modou Moussa ak sëñ Fallou jàng ñeneen ñi nga xam ne ñoo feeñ jamono ginnaaw bi sëñ bi ñibbisee ci géej gi itam bi sëñ bi ñibbisi Touba euh, fukki at ñett lañ ci Zahir ndax ku feeñ 14 ñii ay 14 lañ feeñ waaw ñii 15 waaw xam nga ñooñu kon euh, bi bi ci Zahir bi sëñ bi ñibbisi Touba dégg nga euh, amuñu taw feex bee sëñ Bachirou amoon waaw ndax euh, sëñ Abdoul Ahad ak sëñ Ablaye Jaxate sëñ sëñ sëñ Touba mas na leen may ay kaamil ma da leen a dañ dañoo ñëwoon di ko nuyu si nee sama ñaari abdou yi la leen sëñ Touba tudde woon nee ñu ne buñ ñëwee dañ ko ñaan ay kaamil yu ñu jàngee alxuraan waaye biñ ñëw xam nga sëñ bi mujj gi kenn du ko jox loxo sëñ bi mujj gi ku ñëw na ngay boof wax li ngay wax jóg dem waaye ñoom nee nañ jox na leen loxo bi ko gisee ginnaaw moom sëñ bi kenn ñemewu ko woon ñoom ragal gi tax nañu fàtte kaamil yi waaye moom moo leen ndax am ngeen téere yu ngeen di jànge moom sëñ Tuubaa ñu ne ko déedéet mu ne ndax ngeen yor ngeen jàpp ñu ko de mooy dem leen jàpp ñu jàpp ñëw a ne mu jox la téere ne leen su ma ñibbee Tuubaa ngeen fay ma ko su ma ñibbee Tuubaa ngeen waaye xanaa laat fay na waaw waaw waaye bi ñu laata bind sëñ Basiru nag moom yàlla defal na ko taw feexi moom Euh, jamono ji tolloo daal ci war a jàng xam yooyu ci la sëñ Touba toog biir Sénégal mu nekk ba mu xam ci moom li mu xam ci moom lépp waaw mu doon ku amoon xel ku xamoon adduna ku xamoon feq euh, li mii tey rek laa ko mujj a wax li CREES ko naan defum njar di ko naan waaw sëñ Basiru moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kullu maa huwa euh, kathiruhu muskir fa xaliluhu lépp loo xam ne li boo ca naanee lu bari mandi naan ca lu tuuti aram na fatwa boobu sëñ Basiru moo ko génnee waaw euh, am na bu sëñ Modou Abib nelawee Daaru Musti sëñ Basiru ñëw andaale otoom luye oto sëñ Modou Abal dane sëñ Basiru day bari na lool ci ay bokkam ñu nga xam ne li ko yàlla defal defalu leen ko fu ay fu mbokk tëddee seeti na la fu ay bokk yàqoo defare na leen waaw xam-xamu xam-xamu xam euh, siira itam noonu la ci meloon ndax mi noonul baaxil xadim lépp lu wax ne sëñ Tuubaa def na ko dana la génneel lu yonent bi def sallallahu alayhi lu mel noonu nga xam ne seen ñaari dund yi la boor lëkkale Euh, fii nga xam ne fi la nekk itam muy muy fii ñu ko denc nii Daaru ko denc barab bi ñu ko def nii wax nañ ne at ak mi mu jamono jëy sa si fee mu nekk ne biñ koy defal barab gis nañ fi kaamil yu nga xam ne biñ koy defal barab lañ ko gis te ba ba at mi mu feeñee jamono la ko fa sëñ Tuubaa defoon waaw moom moom moom Cheikh Mamadou Bachir waaw euh, kon moom ci doomu sëriñ bi ñi ci ñi ci gën a ñi ci ñi ci maanaam ñëpp xam nga waa waa Sëriñ Tuubaa moom koo xool da ngay ne mooy géej gi waaw waaye fekk ñëpp géej lañ 빨리 우리가 마이서 잡는 거. 다들 lool suñ borom may na ko lu mayun kenn la yaqaab allahuma lam yakunim boobu wala yakun abadan li mumkin waaye njaboot gi ko yàlla jox itam lañ lool léegi laay wax ci kaw na leen sëñ Modou Moustapha bi muy rëdd jumaa ji ci jamono jooju ak ni matériel ñàkk ak ndox ak ni mu ko réyale ngëm li ko sëñ bi ne woon sëñ bi moom keroog ba mu gisee Touba pàkk Touba sëñ xam nga pàkk Touba sëñ bi da ko doon wër waaw ko wër euh, booba mi nga ànd ak benn rëbb bu ñu wax Demba Dia Demba Dia moom mooy ku nga xam ne moom lañ boole woon ak sëñ bi ne ko maanaam moom xam nga rëbb du réer fu ñu la nee anamu rek na wax ne mu nga barab sàngam na maanaam nga wax nga wax ñu ko daal xisa boobu sëñ Saaliw daan li ci mbaam àll moom mu gaynde gi doon dàq bi mm. sëñ bi taalif ma dawul foo sëy ni booba Demba Jara àndal mm. Demba Jara moomu la suñ bi xëy ne ko ndax xam nga garab gi amul ay dégg te ma jullee woon fa yor yor démb xamati nga fan la nekk mu ne ko waaw mu ne ko nañ fa dem suñu borom nee na li may seet foofu la nekk mooy dëkk gi newoon ci jumaa ji bi ñëwee ci dëkk gi ci la sëñ Tuubaa wéeru ci dëkk la wéeru xam nga ñoom buñu daan natt dara duñu wàññi benn ñaar ñett dañuy dañuy eh, jàng dara ba fu jeexee rek am lu sëñ bii tari ba ba ba agsi fi barab daal di taxaw ne maam Cerno Birahim fii mooy barabam ci àjjana ne ko jumaa dana fi am bala àddina tukki ne ko nañ fi def dañ fi def eh, néeg te tudde ko bayti léegi bokk bi muy dénk sëñ Wër Moussa da ko dénkoon ne ko na ko yóbbu Touba te na ko na ko ñàkk ba ab yéefar dëkk ak moom nag ma yóbbu Touba nag ma ñàkk ba yéefar dëkk ak moom wax nañ ne si Mor Moussa bi mi jël suuf Touba dafa woo doom yu mag yi ak tànk yi moo seen nijaay na sëñ ma ne ma naa ko andi naa ko ñàkk boobu yéefar dëkk ak moom ñàkk naa ay taxas am na ñu may wax sax làkku tubaa muy mat la bul foo seen waaye jënd suuf si lay firi kon moom sëñ bi xamoon na ne jumaa dana fi am te waxoon na ko sëñ Modou Moussa te sëñ Modou Moustapha bi mu koy laat tàmbali tudd naa fi léegi kilifa bu nga xam ne bëgguma du ma tudd turam biir mbooloo bi sëñ Modou Moustapha yónnee ci moom di ko seetloo ba mu téye ko ñetti fan téye ndaw la bi mu ko yeewee dana ko gisuma ko ci lawul mahfuus waaye sëñ Modou Moustapha découragé wut ngëmam ci sëriñ bi dafa tax mu ne moom da ko la néewul nekku ci dana gisuma ko xam nga nit boo ko yónnee la man na la gisuma ko waaye nekku fa moom beneen wax la ko dana ko gisuma ko mu mu rëdd jumaa ji nii mu toll nii nga xam ne jumaa ji bi sëñ Modou Moustapha tabax lépp ci ndoxum taw lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko tabaxee nga xam ne euh, déegub aynu bi bu tawee ba fees ci moo la ñuy tàng def ci def ci citerne yi bu nooree ci la tabax ba lim ji war na tabax àgg sëñ Fallou ñëw bi sëñ lu ñëwee dane si nga war ak Lamine Gueye ku ci wax ci jumaa ji yow laa jàppale su nga war ñëw ne ko bu ma gañee lii nga sumbal sëñ Tuubaa danaa jàpp sama mu ne ko gañe nga daa daana ko nañ dem ba ca borom nga wax mu dégg ñëw ba ci barab bi mu wax loolu sëñ Tuubaa ne sëñ Fallu ne ko demal gañe nga bu daan léemu gerte moom sëñ Fallu day dugal loxo bi ci ci gerte gi ne doom boo xam boo saxee dem ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi saxal tabarkel bu ko nara mooy bul sax bul bul bul bul bul bul barkel li muy tabax jumaa ji lépp këru boppam moom sëñ Fallu sàkketu xat lañ koy def nga xam ne bu ñu nee suba la guddi màggal bu ñu nee suba la màggal guddi gi ci la ñuy euh, am na ñeent dëkk ay ba Cekkeen nag ñoom yooyu sa si Mbàkke bool ñoom la ko sase woon ñoom ñoo ñëw si guddi gi démonté sàkket yu màggat yi monté yu bees yi ba bi jumaa ji àggee remise bi ñu yót ko ko ne ko lii tubaab bi la ko jox ciment bi sante la ko ci li nga jënd ci ciment ndax di mu bare mu ne njagam tubaab bee bëgg ba di ma defal lii sàkkantuma yàlla ak yonent bi ak Sëriñ sëñ Modou Bousso Dieng nee na sëñ sëñ sëñ sëñ Fallou na ko ne seetal ñaari sooro yi féete penku bu la neex nga yow mu ne ko loo ma jox ci laa ko defal ba fas woowu nga dégg dégg ñu ne da doon bañ da doon bañ bañ bañ a bañ a dafa bañoon ci kër sëñ Fallou la nekkoon ki ko yore woon dafa ñëw sama kër Kaolack di jàng xasida ma bàyyi ko ba mu jàng bàggal may woo ko daal di ko jox addiye mu ne ma dégg nga fas woowu ñu daan wax ma ne ko waaw mu ne ma sama kër la nekkoon man mii sama sama daara la ne woon man mii ma ne ko waaw ma ne ma dañoo takk fas wi fas wi nu guut a nu guut a liggéey nee na sëñ Fallou woo ko mu ñëw maanaam dafa dafa woo jëwriñ ji mu ñu ne mu andi ko nee na sëñ Fallou bi muy wax fas fas wi daa dugal bopp bi dugal ñaar diggante ñaar tànk nee na sëñ Fallou waa ji la ñëpp nga liggéeyal sëñ Tuubaa dama liggéeyal sëñ Tuubaa dama liggéeyal sëñ Tuubaa ñëpp liggéeyal waaye nee na bi mu àggalee bi mu demee nee na bis boobu fas wi jëna ab saako saako kemb <laughs> noonu la fi nekkee woon nga xam ne booba jumaa ji jumaa yi jumaa yi Tuubaa ji murit yi ñoo ko tabax ci seen loxo ndax booba eh, sëriñ bu ne da def yett danga ñëw taj carrière trois mois Tuubaa danga joxe ñu nga xam ne ay maneebar la ñuy nekk ci jumaa ji kenn du leen fay am na sasu xaalis booy joxe itam at at bu nekk ba ne jumaa ji àkke waaw bi ci remise jumaa ji moom ci la miire këram daal di tasaare daara yi ne moom amatul liggéey bi muy def amatul daara moom suñu fal waaw suñu ablaat mii bi mu ñëwee suñu ablaat moom sidna Ousmane la nirool ndax sidna Ousmane moo yaxal alquran te mooy troisième xalifa bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam sëñ mooy ñetteelu xalifa bi te moo dajale xasida yi sëñ Tuubaa waaw moo dajale xasida sëñ Tuubaa gis ngeen yokk jumaa ji lim ci def ak kër sëñ Touba sëñ Saliou moom sëñ sëñ Abdou Khadir sëñ Abdou Khadir sëñ Abdou Khadir euh, bi mu feeñee jamono bi mu feeñee jamono góor am na góor bu nga xam ne ci mag ñi ànd nag maam Cheikh Ibrahima la bokk nee na dafa demoon de booba ñu ngi njaareem nee na dafa dafa naajee ñëw bu ñëwee borom daaru ne ko euh, nen nañ nañ takk dañuy dem daaru daaru daaru alimul xabir ne dafa am ko fa feeñ sëñ Tuubaa nee na ko nga dem tudd ko te fileeg ngay àgg ku la gis dana texe waaye sëñ Saaxo nee na buñ dàqee fas yi moom day wax daf borom daal di leen wax ne def leen ndànk ndax ñu gis ndax mbo ndax ñu gis mbooloo ginnaaw fileeg ñu àgg ko ko ko fi gis dana texe waaw waaw moo tax yaa ngi ko ay imaamul ay imma Euh, euh, euh, sëñ Saliou moom jàng moo ko delloo si yoon murid jàng moo ko delloo si yoon murid yow murid yi jàng boobu di boo daan dégg ñu naan wax daara ju amul daa ah, booba looloo tax ah, waaye moom bi ñëwee ci la indi jàngale alquran ci la indi jàngum xam-xam ba ba ay mënu joom ah. ba ni demee sëñ sëñ sëñ bi ñëw ba ci sëñ yi kon ñun yàlla jox nañu ko nga xam ne nga kenn am ko waaw Cheikh Mouhamadul Mourtala borom fii waaw Cheikh Mouhamadul Mourtala radiyallahu anhu Cheikh Mouhamadul Mourtala moom mooy yonent bi sallallahu alayhi waaw ma xam nga li tax nga xam ne sëñ Tuubaa moom kenn mënut a xam euh, maanaam kenn xamul dara jaam am na ci kilifa yi Sénégal yu nga xam trop waaye xam naa ko dafa mas a wax sëñ Modou Moustapha ne ko damay bëgg a tàmbali jumaa suñ Mourou Moustapha ne ko euh, suñ Mourou Moustapha ne ko danaa ñëw waxtaan danaa ñëw seet si la ci sa jumaa jooju. benn bis moom mu gént gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom sëñ boobu mu ne ko sa jumaa ji nga ma doon wax laay ñu ànd ñëw ba ci barab moo yonent bi sallallahu alayhi sëñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam rëdd jumaa ji ci aw marakisam bi ñu xëyee la sëñ Mourou Moustapha ñëw foofu ci seet si ko moom moom ne ko jumaa ji nga ma doon wax laay seet ñu ànd ba fa fi ko bëgg a def na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam defe woon mu ko moom itam ak maraaki sax mu ne ko nee nañ da ko ne bul ma bul ma nax yaa fi jóge ci suba waaye Cheikh Mouhamadul Mourtala boo sàkkoo gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam sëñ Mourtala ngay gént gis ñaari booree murit boo géntee gis yonent bi ba sëñ Mourtala yi nekk boo xëyee gis sëñ Mourtala waaw kon moom mooy yonent bi ci ñun waaw ba li mu li mu tasaaree li mu tasaareel lislaam ba dugal ci lislaam ñu nga xam ne waxuma la murid xam ne xamuñu woon sax lislaam waxuma la ñu xam murid waaw kon ñun yàlla jox nañu ku nga xam ne joxu ko kenn waaw kon ñun jàpp ci bu baax baax lañ war a def te jàpp ci nekkul ci wax waaw mu ngi ci tënku ci yi nga xam ne moom la bëggoon Sëñ Tuubaa nee na xeeti nit ñoo ànd ak man ñii dañuy liggéey bu baax dañuy jaamu yàlla bu baax liggéey di ma jox mu ne ñooñu duñu am isaabi adduna duñu isaa duñu am isaabi alaxira mu ne ñeneen ñi dañuy jaamu yàlla duñ jaamu yàlla waaye dañuy liggéey di ma jox mu ne ñooñu faaw ñu am isaabi adduna ndax li yàlla digle jaamu yàlla defuñu ko ñeneen ñi ci des mooy ñi nga xam ne moo gën a bari léegi mooy xeeti commerçant yeeg arabisant yeek ay fonctionnaires yeeg yooyu ay jullit lañ faaw jaamu yàlla te defe nañ ne jariñ nit euh, ñàkk euh, ñàkk xel la waaw euh, sëñ bi nag nee na ñooñu ci fen wu nëbbu lañ nekk ndax nee na jigéen sax ku ko bëgg da ko jox dara quatrième groupe bi nag mooy bi ci yées mooy bi nga xam ne duñ jaamu yàlla duñ jox sëñ bi dara waaw mu ne boobu moom mooy mooy mooy bi nga xam ne ci fenu leer naa ñi lañ nekk mooy ñi nga xam ne duñ jox sëñ bi te duñ liggéey Euh, euh, ñun euh, li ñu yàlla jox daal joxu ko kenn war nañ cee jàpp bu baax a baax te góor góorgóorlu te sàmm suñ njaboot fii te itam suñu saak bi suñu ko gàddew génn xam ne lu baree ci aju ca Sénégal lu bare ci aju fii ba kunu reetaan it duñ yëg yaakaar naa su fekkee ne am na ay laaj yu ñu ma bëgg a laaj. sëñ Touba murid yi dañ koo warax warax xam nga warax ni ñuy wax warax lekk xëy na doo ko xam di ko waaye sëñ Touba wet goo xool ci moom jar na ànd ak moom rawatina xasida yi xasida googu mu tudd muy jaalibatul maraaxib fi toll murid yu baree ba dañ naan yu kenn du ko jàng koy jàng da def lii te au contraire boo xooloon fukki woy yu mujj yi ci jaalibatul maraaxib yépp sëñ Tuubaa da ciy ñaanal ku koy jàng sa morom ñee la te borom màggal gii sëñ mun radiyallaahu anhu taw atallaahu umra yal na yàlla yokk fana may ko wér jële naa ci sëñ Bas mu nga xam ne sëñ Basum sëñ Fàllooy baayam ndax booy wax ci biir mbooloo da ngay jël ne sa silsila la sëñ basum sëñ bas doomu sëñ basum sëñ fàllu nee na sëñ Muntaxa nee na ko sëñ Mat Lamin Jóob nee na sëñ Tuubaa nee na jaalibatul maraaxib ku takkoog moom lim lay defal boo takkoo nag moom sëñ Tuubaa du ko man ndax jaalibatul maraaxib ko ëpp jot dégg nga loolu baax ne itam ku yor jaalibatul maraaxib rombi armeel bu ñu fa doon buggal doomu aadama danañ ko bàyyi ba déwén ne itam kër bu jaalibatul maraaxib nekk néew bu fa jógee dina dem àjjana waaw waaye nag suñu mën taxaa teg ci ne wenn wayu ma faatimal Bichri wecc na Jaalibatul Maraaxi sëñ Bass mais nag ne moom ginnaaw sëñ Tuubaa ko digal jàng Jaalibatul moom Jaalibatul Maraaxi bi lay jàng waaye du jàng jees du jàng du jàng du jàng du jàng ma waaye xasida yooyu euh, maanaam xasida comme pharmacie xam nga pharmacie boo fa demee am na garab boobu buy métti biir buy biir buy daw xaw tànk buy métti gis nga ma fàttewul Bichri boobu nee nañu moom mercure bii ñuy soppee xaalis ñooy mercure waaw kooku xam naa ki ko wax kilifa la waaye bëgguma bëgguma du ma wax turam damay wax damay bàyyi noonu rek waaw mercure nee na ñooy te gis nga euh, ma fàttewul Bichri wax nañ ne bis bi sëñ Fallou feeñ dañoo fekk sëñ sëñ sëñ fa sëñ Tuubaa toll ci yaa faa di leen faddalahul xalaaqu yaaman bihi fa yow mu rajab yaa faa di leen faddalahul xalaaqu yaaman bihi faaraqani imlaaqu waajahani l yowma wala razaq kaana bi maa tanmoo biir arzaq waaw euh, yow mu rajab waaw euh, mooy yow yaa faa di leen faddalahul xalaaqu yaaman bihi faaraqani imlaaqu waajahtu ko l yowma wala kaana ما وتعني ما به النفاق ورددت لي ما زانه الفاق بهم به استنارة الآفاق جاء رداء والفوز والعكاف بك كما بك بك احتوينا ما له نشتاق بك احتوينا ما له نشتاق تعالى لك كنقلق مفاتيح البشري مفاتيح البشري آه sëñ Abdou Baaxe ana ana ana ana taal ana sëñ Malick sëñ Abdou Baaxe dafa digoon benn ko bis boo xëyee na ko jàng mawaahibu sëñ Mor Moustapha nee na sëñ bi nee na ku ko saxoo doo bekkoor saxoo doo bekkoor doo ñàkk doo bekkoor xam nga nit ku ne sa sa liggéey ci la sa bekkoor nekk nit ku ne sa liggéey ci sa bekkoor nekk waaw euh, euh, Matlabul Fawzayni doy na gàllaaj waaw Matlabul Fawzayni doy na gàllaaj moom bokkul bokkul ak Hisnul Abraar ndax Hisnul Abraar lépp al alquran la lépp ñaani xadis ñaani xadis la waaye Matlabul Fawzi dañuy wax ne Ismail Abrar dafa lay dafa lay aar ba da lay tëj day tëj sa wërsëg man ma waaw man mas naa koy jàng fi benn mag mu ne ma kii guddi lañ koy jàng waaw ndax lay tëj comme comme boo suba ci ngay ci ngay euh, kii waaw waaye Matlabul Fawzi ni moom wa waj bulahaal xayra min al jihaati asiti waqfiha anil afaati wa kasiran xayraati yooyu moo ci def ay palanteer yu nga xam ne dégg nga de gàllaaj la gu am na gàllaaj la te am na te te dana dana yokk wërsëg waaw te boo gisee baat bis yàlla wattoo alquran muy muy innaa nahnu nazzalnaa zikra wa innaa lahu lahaafizuun yaa xafiisu boobu moom la yàlla moom la moom la moom la suñ wattoo xasida googu mooy yàllaaw yaa xafiisu yaa salaam yaa faay xal xalamaa di xaari yàllaaw yaa xafiisu la suñu wax nafsi wa diini suma ahli wal walad wa maskani laka wa hakada dunyaaya ma oxraaya matlabu shifa yi mii wallahi man da gëm naa wallahi gëm naa ne sida mën na ko faj waaw matlabu shifa yi gëm naa ne eh, yaa man yaroomu dafa kuli day dafa kuli day la suñu wax de fala tufaariq matlaba shifa yi ولوم عليه waa المساء والصباح واخلصا tanal shifaan foofu la waaw sindiidi loolu la jox patriote patriote boobu nga déggoon ci américain yi patriote boobu nga déggoon missile bu nga xam ne bu missile jógee mu daw kar ko ci sindiidi la am wa damiran ku laa daayintu duru bi naa xablal wusuuli la naa am na ci ñaari way yu nga xam ne nee nañ sëñ fukki junni la ko jaayee woon sëñ Mor Mbaye Cissé wa kun mu'iizan lanaa min min charri di hasadin maa charri famin wa sarri an yàlla wa charri sihrin wa sarri xalqi insihimo maa jinnihim wa dawaati summi yàlla fukki junni ñi xam sëñ Mor Mbaye Cissé xam nañ ne lu mu bind bind ko ca nee nañ fukki junni la ko sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ la ko sëñ Fallou la ko la ko ko la ko ko ba ci soxna su baax léegi bi ñuy ñëw lañ lañ ne am na euh, xasiidataani li talabi zawja saaliha man bi ma ci am benn bi xaw ma ko mosuma mosuma ko jàng waaye man bi ma ci am mbooleem loo bëgg ci jigéen waaw wa wal taj alha zaata xayrin wa jamaal wasaata yumnin waaw wasaata axlaaqin xasinatin wasaat na nekk ku baax ci ko na nekk ku kuy porte takk li ñuy wax takk falu koo xam ne boo ko takkee ren balaa na gën déwén ñu naan kii fu mu jëlee li mu yor waaw zurriyatan tayyibatan tujadilu na janabil mustafa tayyib suqli bi yaay suqli bi jaayihi waloo dan mun jiba waloo dan mun jiba waloot waloot mooy ku jur comme lëg ah ah déedéet déedéet loolu xasida boppam la wa déedéet déedéet déedéet bokkuñu waaw ah. way saa saala ki baadi an ni moom moom lañ ko tënke way saa saala ki baadi fii ne xadi wala jibu taxawat daay mool mool nañ ko ñu ngi koy ñu ngi koy wecc xandi dégg nga euh, asma wax lu badri mii man daanaa ko fi indi ñu ko wecc xandiku képp kuy tukki yóbbaale ko da nga ñibbi te doo ko jàng da ngay teg sa kër rek fu mu nekk it kenn du ko kenn du fa sàcc asma wax lu badri waaw asma wax lu badri wax nañ ne sëñ bi mu nekkee ndar di waaj a dem daa am kilifa gu ko seete bëgguma jaar ci turam ñëw na ko da ngay bind asmaaw ahlu badrin baale ko boo ko defee da nga dem ak jàmm dikk ak jàmm sëñ bi na ko danga leen a gisul waaye ba ngay génn waa ahlu badrin nga dajal ñuy génn ñuy dugg <laughs> ngay dugg si waa ahlu badrin nga dajal ñuy génn ñu ne booba sëñ sëñ bi sëñ tub suñu borom nee na ko boole naa la ci waa ahlu badrin jox naa la tiyaaba wa ahlu badrin boole naa la ak ñoom ñoo lay wattu moo tax sëñ ma Lamin Jóob ne euh, Euh, yaa fa euh, euh, qaddamani xuddooma man xat jaawoo bi bushari wa xuqi xar jaaw ni xuddooma man xat jaawoo ñetti xaafa ngoog bu ne cent la muy trois cent bi bushari ñaari bàyyi muy muy quatre ak yaagi muy quatorze bi bushari moo mooy mooy muy 314 moo tax léegi duutuñu 313 314 la buñ ci boolee sëriñ bi waaw 314 lañ moo tax ñu bari mbokk si boso yi dootuñu wér daal 313 314 lañ koy wér. te tubaab yi te tubaab yi te tubaab yi gis te tubaab yi gis nañu ahlu badri tubaab yi gis nañu ahlu badri dafa am bis bu nga xam ne sëñ bi dafa dafa dem xam nga sëñ bi daan def fu mu gis fu neex a yàlla rek mu jaamu fa yàlla. bari na loolu ci histoire am ba fii kër gi ci Dakar kër sëñ Modou Moustapha gi looloo ko indiwoon daan jéggi tali bi dem di jaamu yàlla foofu dégg nga. dafa am jamono bu leer leer gu neex la mu yéeg ci mu dem ci benn montagne toog fa di di jaamu yàlla. ba mu yàgg euh, tubaab bi di ko wër di ko ba fekk ko foofu bi ñëwee fekk mu taxaw di julli euh, taxaw ci côté bi ñu gis yeneen ñu war seeni fas ci côté ba ca des yor yére yu weex. ki jiite woon tubaab bi ne ne ne leen ne ne ko ñii nga àndal ñan lañ man da ko ne ñii ñan lañ. ñi taxaw ni ñan lañ. sëñ bi ne ko yow ñi nga àndal ñan lañ. mu ne ko mu ne ko mu ne ko samay soldaar lañ loolu la loolu la tubaab bi toon samay soldaar lañ sëñ bi ne ko ak man tam wax nañ ne loolu def na sax ci ñoom ragal gu nga xam ni ginnaaw bi ñem ñem nu ngootuñ maanaam ñemeetuñ sëriñ bi daal ñemeetuñ ko waaye ñoom gis gis nañu ahlu badrin kon asmaa ba badrin euh, de wattu ba man aaliwul jàng da nga koy jël denc rek sa place wala yooyu dégg nga euh, kii lii mu Nuuru Daarayni la wala Muxaddamatul Xidma waaw eh, Nuuru Daarayni wax nañ ne bi ko sëñ bi defaree njaareem xew yi dafa bari ba dañ koy ne da war a wàññi doole ji nee nañ sëñ Saaliwu nee na bu sëñ jox ma sama téere ba Nuuru Daarayni la jublu bu jox ma téere ba nag kaamil la waaye bu jox ma sama téere ba Nuuru Daarayni la jublu nee nañ sëñ Saaliwu nee itam fu ko bu ko fàttee fu ko sëñ fàttee fi barab day mel ne juloo bu fa teb kalpem fi barab waaw kon xasida yi moom mën naa la ne ah. wakaana xaqan. wakaana xaqan xaqan ali naa nasul moom wakaana xaqan xam nga dafa am bi sëñ bi nekkee gànnaar dafa am benn naar bu nga xam ne dafa am benn commandant bu nekkoon attaan commandant bi léegi euh, dane naar yi ni ngeen di déplacé nii. Euh, di màng comme pël yi moom loolu arrangé wu ko dafa bëgg ñu toog benn barab te ñoom it loolu arrangé wu ndax fi nga xam ne jeexee wala ndox mi dañuy bëgg a dem léegi ñu def délégation pour sëñ bi ñaanal leen délégation bi ñi ñu tànn na leen diw ak diw yéenay dem ñooñu am na ci ku génn sëñ bi taalibokaan xaqanaa li naa na moom leen jox bokk na ci mbiram ci histoire am boo ko xamee daana batale daana gàttandu daana wax ne dem leen ci garage ba laajte diw wala dem leen ci marché ba laajte diw ñu dem di wër daana diw gis ko ne nga ñëw luy sëñ bi comme ne a gis bu daan fatu itam te xam na ne yow da nga ñëw mu battale la ñoom balaa naaree ñëw sëñ bi taalif na wakaan xaqan alayna nasrul mu'minin battale ko sëñ am sot jaxati ne ko bu naari ñëwee ne ko mooy seen topp sëñ ma dem Jóob nee na bi bi bi bi bi bi bi ko sëñ bi taalifee ba jox ko ba ba ba bi ko bi ko taalifee rek ci lañ déplacé commandant boobu nee na bi ko sëñ bi taalif moom sëñ ma Lamin nee na bi ko sëñ bi taalif booba fii sëñ bi ne daa bari ay yoo ak xel ak i mat waaye nee bi ñu ko tàmbalee copier di ko di ko bind noonu di ko jàngaat comme ni ñuy def ni ngeen di ko kuréeli nii nee na ci la yooyu disparaître ci la yooyu fel yooyu yooyu ak matt yi dem mu daal ci teg na moom ma Lamin foo ku koy jàng foo foo nekk di ko jàng lu fay say jafe-jafe suñu borom dana ko dindi bu fekkoon ne da nga am alkaati boo xam ne saa yoo tourné mu arrêté la nga ko jàng da ngay xëy rek dootoo ko gis waaw sëñ Abdoulaye nee na mun na ala xaari idil xuroofi bi maa yafuuqu zanna min maaruufi cëf ka la lu nga xam ne loo ko saf attan na ko xam nga cëf ka mën ngaa tàmbalee ci mbaam ba ci avion ba ci bato waaw mu ne mun na ala xaari idil xuroofi bi maa yafuuqu zanna min maaruufi cëf ka la loo xam ne li loo ko saf attan na ko léegi nag wax nañ ne sëñ Abdou Xaadir dafa diglewul altene ma fàttewul bisire wa kaana xaqan alxames taysir wa kaana xaqan ajuma maraaxib wa kaana xaqan kon boo ko doon xasida goo ci xam rek man ngaa xam man ngaa bañ a xam njariñ la waaye man damay wax ne goo ci wël wëlërenteel te sellal ko man ngaa dem ba loo ko def loo mu def ko waaye mi ngi mi ngi nekk nag ci sellal gi ndax yoru xasida di ca tegu di bind kenn waru ko def yoru xasit dugg ci duus kenn waru koo def ku ko maa ni da ko war a jàng ba mu àgg te doo boo xam bu la neexee mën nga koo jàng ba mu àgg te te te doo te doo te ñaan dara boo noppee rek ci ndax moom suñu ñaan la ci li mu ñaan waaye moo waaye jës mu xadimaat ku ko saxoo da nga jege yàlla jege yonent bi jege sëriñ moom moom du jeex li ci sëñ mat lamin jeex mën naa la ci liwal ba yàllaa xam am na benn île bu nga xam ne la bu xam ne nee nañ kenn dëkku ci maanaam ah, ay ay bàyyi ma rek ci nekk mas nañ fa benn tubaab mas na ne bu buñ ko fa yóbboo buñ fa yóbboo sëñ bi du si moom mën na ko fay bu ko yóbboo dellu si nee pour ñu yóbbu ko fa am nañu am nañu ñetti fan ci yoon wi ba àgg ci île bi bi ñu àggee ko wàcceeli gaalam boo bokk na ca nee nañ tegal nañ ko fa keesu suukar moo suñ maam Samba Laobé ñoo àndoon bi leen fa bàyyee ba dem sëñ bi daal di tàmbalee di julli di julli sëlmal di julli sëlmal ba mu yàgg mu daal di toog daal di ree suñ maam Samba Laobé daal ko fii ku fi tala ree mu ne ko ah yow ko da ne woon maa ngi yow xajuñu kantongu jolof te tey sama der bi ñoo ko bokk mu ne ko waaye loolu lépp mu ta wax léegi daal lijjanti li ban jóge fi rek waaw wax nañ ne dafa gëmm sëñ bi da ko ne gëmmal da lu mel ne secousse la def rek ñu gis ne dellu si nañ fi ñu nekkoon tubaab bi ko yóbbu woon moom am na trois jours boobu pour dellu bi mu ñëwee bi sëñ bi ñëwee nee nañ moom laag du moom photo photo moom bi mu ñëwee ba xam ne moom la dafa xaru bi mu xam ne sëñ Tuubaa ñibbisi na dafa xaru foofu nekk na fa bu nga xam ne day day bind di weer nii moom nga googu ngay wax ak benn benn tubaab jëlu xajam dindi ceen gi bàyyi ko muy dox noonu di foon nii sëñ bi ne ko dàqal sa xaj bi tubaab bi dem andi xaj yu bari waaye bi ko bi ko sëñ bi joxee ñu xalima gi benn xaj bi tàkk bu mu laal moroom ma tàkk waaw ba yëpp jeex am na ku nga xam dafa dem toolu buur ubbi ko fexe ba gaynde rëcce fa pour ñëw ci bi gaynde gi bi mu rëccee keneen la fàdd ñu rey ko ñu ñu fetal gaynde gi door jàpp ki nga xam ne moo ko rëcculoo ne ko yow def nga ñaari déli ndax yaa tax ñu rey tax nga gaynde gi rey nit tax nga ñu rey gaynde gi te gaynde gi buur la te moom boobu mu demoon ci sëriñ bi la bëggoon ah, am am na bu nga xam ne hmm, ah, dafa toog ni di bind benn waay benn tubaab ñëw ŋàbbu jaasi def nii naan ko sama bàyyi daan dagg boppi wàllu yi waaw sëñ bi daal di koy joxoñ xalima gi ne ko duma doo sa baay te doo duma duma awliyaaw ya ya sa baay daan dagg seen bopp tubaab bi wax nañu ne ba mu jógee foofu wala kii waaw euh, ñoom foofu yóbbu wuñ ko woon pour bàyyi ko fa noonu dañ lu lépp loo xam ne lu ko lu ko fi mën a jële def nañ ko waaw Gabon euh, li ko fi jële nag moom xam naa xëy na jeexub liggéeyam ci ci ci ci ci ci ci baatin la waaw mu mu war a ñëw waaye ñoom uh, te teewal bi muy ñëw moom sëñ bi bi mu signé ba noppi dafa téyewaat bindukaay gi mu signé ne ku xeex nit da ngay nangu ci moom dara nga xam ne kon moom du jàggee nag moom moo reculé waaw sëñ moo musta reculé sëñ bi histoire am musta reculé waaw uh, am na nag ñu baax ñu ne woon foofu ay sëñ bu Bousso ay maam Thierno Ibrahim ay sëñ Balla Coro euh, ay maam Cheikh Anta ay Cheikh Ibra Fall maam Cheikh Ibra Fall kenn ëpp ko doole ci xeexle sëñ waaw te maam Cheikh dafa amoon xel ndax dafa daan xam nu mu naxanteeg tubaab loolu ñu yaakaar ci moo ne dafa amoon xel moo ëpp xel ci àdduna waaw te résultat bii mu am wane na ko waaw euh, ñoom ñoo daan maslaa ak tubaab sëñ bi itam amoon lu am solo lu nga xam ñëpp war nañu koo jàng ci moom mooy dem ba mu yàgg nga nangu ñu wow mat la xam nga doom do adama dem yàgg mu ñëg nga xam ne lii ki day wax ne man du ma nangu ñu mat ko ba def loo ko li mu bëgg loolu bari na ci histoire u sëñ Touba ci 14 et 18 euh, loolu moo ko indi sëñ bi nee joxe soldat dane du sëñ bi man ñi ànd ak man euh, di liggéeyal yàlla du ma leen joxub yëpp ñu di ko xeexal benn ñaareel bi mu ne euh, man lii may woote sax xeexluwuma ci waaw waaye belees ne bu joxewul soldaar mu mu génnewaat ko bi moo Modou Moustapha jaaxle ànd ak belees ñëw ci maam Thierno Birahim maam Thierno Birahim ñëw njaareem jaarlu ci sëñ bi de daa toog ci pénc bi rek commencé bind daal ne sasoo deux cent personnes cheikh yi na kenn ku nekk sasu ku matul ma mottali la ay waay doom ci kaw na dem yéeg wax ko wax naa ba taay waay ah. mënu ma ci ñoom dara dégg nga ah. Ah. léegi kon foofu sëñ bi nangu nañu wommat ko bi ñu dajaloo ba ñëw mbokkam mbokk mbokki sëñ bi ñëw ne ne ne borom daal lu tax nga def lool mu ne leen buñ ko buñ ko buñ joxewul soldat su ñu génne wat ko te mag la te wérul waaw te illaa man a waxal boo mut maynun bil iman loolu alquran moo ko wax nit ki léeg-léeg ñu ga gàkko mu def lu nga xam ne suñu borom du ko ko topp ndax nam demee mooy tax kon euh, loolu lu mat a jàng ci sëriñ bi la mooy nanguñu mat la lay lekk te loolu bari ci bari na ci histoire am foo gis mu bind mustaktib rek xamal ne moom bindu ko keneen ko bind moom buy signé nag day wax ne mustaktib ki ko bind lu bi ku mel ne ku mel ne ku mel ne tey Buur Siin Buur Siin xam nga 1902 boobu ngay wax xam nga 1902 ci lañ ñëwoon Daaru Manaan di visité kër Sëñ Tuubaa bi sëñ Mat Lamin nee na sëñ Mat Lamin nee na bi ñuy ñëwee bi ñu euh, jaaruñu bunt yi de dañuy dóor dañuy dóor dañuy dóor jaasi sàkket bi daal ñu dugg jugoo kees wi cité ba mu jeex ñu ba nee na sàkket bu mujj bi dañ koo tëral Buur bi nga xamee ne ñoom dajaloo ne wax ne sëñ Touba daa yore gànnaay daa def gànnaay daaru mën a Buur Siin moo ñëw ci sëriñ bi sëñ Bachirou nee na bi mu ñëwee bu jub ko daa summi ay bot yi mu soloon sukk benn bët woo ma daal ne salaamaaleykum sëñ bi ne ko waaleykum salaam kookan la mu ne ko Coumba Ndoffène Diouf ñu gën koo xam ci Buur xam na ne bu nee Buur sëñ Touba ne ko siin yàlla ko moom moo tax mu ne ku ma Ndofène ñu gën ko xam ci buur siin luy say tànk mu ne ko sama mbokk ceddo yi dañoo dajaloo wax ne denc nga gànnaay man nag garanti naaj sama mantu ci ne buñu fi gisee gànnaay ñu folli ma te bëgguma ñu indi fi gànnaay ci guddi gi ma tax mu bëgg ñu wattu ko gi sëñ bi ko loolu loo ci jublu mu ne ko damaa bëgg bu ñu demee yow man xiyam noonu ab borom dawkat di ko di def mu defal ko nga defal ma ko mooy bu lekkee ba noppi ci bi defal ko ci gaalam mu lekk sëñ bi ko bu demee yow ma xam danaa la ko defal lu ëpp loolu xam nga loolu 1902 la 14 18 bi guerre bi jeexee bi ñu woowoo sëñ bi ga ci gaar bi ne ko dañ lay bindal dañ lay defal médaille dañ lay takk dañ lay décorer xam nga sëñ bi ñëw na bi ñëwee Buur si ñëw na léegi bi ñu ñëwee euh, euh, ñu ne ñu ne ko dañ lay takkal médaille sëñ bi ne moom mën naa jël téere bi muy àndal ngir nit wane nitu jàmm la waaye nag takk mandarga mu dul lislaam moom du ko def ndax booba médaille bi croix la gouverneur bi daal di mer ne ko ne war nga maa moytandiku ndax yow maa la génne woon Sénégal booba gouverneur Sénégal rek la léegi man maa yilif fukki réew ak juróom yu Afrique sëñ bi ne yow yaa ma war ndax man ba may dajeeg yow damay làmbutu sama mbir te jii fi mu toll nii sama mbir a ngi sama loxo fi nga taxaw nii lu ma wax suñu borom mu def ko ci yow foofu nag la buur suñu jébaloo ci moom ne ko jébalu naa ci yow ne ko buur amut lu may aw fasam jox naa la sama fas wi waaye damaa bëgg nga may ma ma war ko ba ñibbi ba <laughs> mu bam ba mu ñibbee noonu la da ko yónnee sëriñ bi biñ nee sëriñ bi fasu buur sin wi ñëw na daneen buñ ko jaarale ci bunt yi nañ ko baddil waaye di ko ka ko womatoon di ko womat ba ci kanam sëñ bi sëñ ko xool mu yàgg mu ne buur sin dee wàccoo waaye man tam danaa wàccoo moom daal ne nañ ko jaay ñu jaay ko mu jël xaalis boobu sëñ Mat Lamin nee na yu mu doon jëfandikoo suukar ak warga ak ak yooyu la ko jëndee kon bu Buur Siin moom ci ñi dajewoon ak sëñ bi ci nit yi àdduna ku ko ci ëpp xel ku ko ci ëpp wërsëg amul ku ci ëpp taw feex du wërsëg taw feex la ma man man de sama sama philosophie li may wax damay wax ne gone gone amut gone ñaar rek am ku bëgg àdduna ak ku ñàkk jom ki bëgg àdduna day dem ba màggat ne gone la ki ñàkk jom yi na ma yàlla baal day dem du fas yéene fas saa ma ne ma gone la Usaama bi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam di jox armée mu di ko jiite armée bu nga xam ne Aboubacar a ngi ci biir Omar Ousmane Ali Usaama 18 ans la mu yilif leen ñoom ñëpp jamono ji ci ginnaaw damay waxtaan ak Cheikh Sidi Mokhtar xalifa général mu ne ma mag ñi bu njëkk fukki at ak juróom dana fekk lu ñu war a xam ñu xam ko imam Shafi'i juróom-ñeenti at mokkal na alquran mokkal Muwatta mokkal ñeenti junne hadis juróom-ñeenti at 9 ans bi mu ko amee mokkal na alquran mokkal Muwatta moom sëñ bi xam na ko dégg nga mokkal 4000 hadis boobu 9 ans la am bi Thierno Birahim bi mu wut sëñ Tuubaa 32 ans la am. di seexal di jàngale xam-xam yilif ñëpp ndax booba suñ tubaab mii dem ci géej gi man nga ne ñeenti ministère la fi bàyyi njàngaleem alxuraan mi suñ daam abdourahman loo moo ko yor njàngaleem xam-xam mi maam Cerno Birahim ñii marutu suñ ma numbem euh, xabaan ak maam Cheikh mi newoon ndar di yelwaan di leen dimbale ñeenti ñooñu la fi suñu bàyyi woon mi dem ci géej gi ñëpp nag ci kilifteefu maam Cerno Birahim la ko bàyyi woon Serigne Modou Habib mii doomam nelaw bu yàggut ñetti at ci la doomam jàng alxuraan bind ci kaamil ñetti at kon at yu bari moom amul prix ci lislaam amul prix ci rawat na ci yoonu Sëñ Tuubaa Sëñ Amsatu Jaxate bi bi ko baayam joxee suñ Tuubaa daraan def buñ noddee mu ñëw sàppe su njëkk si am kilifa goo ko ne gone du julli sàppe su njëkk Sëñ Tuubaa ne ko déedéet ginnaaw am na farlu bala ñuy bala ñuy bala ñuy julli mu jàpp ñëw bàyyi ko muy julli sàppe su njëkk ñuy sàkketal sëñ Tuubaa sëñ am sotti jaxate jël ak ak ak ak ak euh, gën taxaw ci di sàkket mag ñëw ne ko xam nga ne gone ko toll yow mënut a sàkket sàkket sëñ Tuubaa yi mu ne ko tee ngaa bàyyi ma def tuuti nga xool su baaxul ma bàyyi mu bàyyi ko mu sàkketu diir mu dem jël bant euh, daa kii ko xeet ko ba mu ki ñaw mu jam-jam jàllu mu ne amoon ah, na si wax na dëgg waaye euh, Cheikh Cheikh Moustapha bi mu wut Sëñ Tuubaa 39 ans la am yilif yoonu mu wépp 39 ans la am kon euh, at ay at du du du du du raison ci nit euh, ñun euh, fii man li ma li ma gën a bëgg surtout daal ñun ñu gën a xam ñun ñoo ñan benn ñaareel bi ñu gën a xam ki ñu àndal mooy kan loolu nag xam gi mi ngi ci. yow nga jàpp ne immigré nga maanaam dangaa ñëw fii di wut si teraanga waaye dëkkoo fi bëggoo mel ni ñoom meloonu ñoom ndax nit koo xam ne kii bu jaaxlee xaru kooku du koo xam ne kii bu jaaxlee xaru koo xam ne kii bu lu fu baayam ak ndeyam màggate mu tàggook ñoom koo xam ne kii fu ndeyam ak baayam mënatul wóor mu wóor ko doon ci ñoom dara amatul ci ñoom soxla ñooñu duñu royukaay duñu royukaay duñu ñu ñuy ñee waaye takk ndigg ci takk tubéy ci man li ma ci gën a bañ moom mooy takk tubéy ci fudul fañ koy takk parce que góor góor sëñ bi góor du jigéen góor sëñ moo daan wax ne di dalee ci puso ba ci kanu góor a tax ñu wut ko góor day dëgër Sidna Omar daan jël ñaari mustaasam yii takk ci takk bu bu amee soxla ñaari ñaari cati mustaas yi lay fas suñ laxasaay gii nga gis nii murid yi di ko def du du yëf caaxaan de ci suñu suuf tasawuf la bokk mooy mooy dogu gi nga bokk dogu ci ne fee nga jëm da nga fa àgg waaye tubay ciy taat àgg fa nga jëm mënut a ànd waaw mënut ànd wallaahi mënut a ànd te góor du jigéen góor dafa war a dëgër góor warut a lekk góor war a nelaw góor du lekk góor nelaw góor du lekk du nelaw si naa ma daan wax ne du nelaw ndax mu ne bu nelawee bëccëg ñi ngi koy sàmmloo njaboot gi yaa sànku bu nelawee guddi moom du jaamu yàlla mooy sànku dawut nelaw Sëñ Tuubaa xamutoon guddee bëccëg Sëñ Tuubaa lu ne da nga def na ko heure sàngam xamutoon guddi ak bëccëg lu nekk am na waxtu bu mu koy def waaye góor day dëgër góor surtout ñun ñun kin yaakaar Sëñ Tuubaa nu ni meloon nga xam ne moom bi mu ñëw moom dong la ñëpp contre ko sëriñ si contre ko tubaab yi contre ko ceddo yi contre ko mu taxaw moom dong dëgër li mu nekk Gabon lépp kenn ku ko wéttali amul personne amul waaye mosut a yox yoxi nee na ñëpp xam nañ ne tubaab bee ma tooñ tooñar bi ma waaye ba ñu ko topp sama tànk kenn du gis fu ma defee lu ruusloo sama tànk amul waaw kooku nag koo xam ne kii moom nga yaakaar yaakaar mooy sa royukaay dangay takk sa ndigg dangay ngay dëgër da ngay am jom doo bëgg lekk doo bëgg nelaw waaye nelaw saa waaye ba ba jant bi fenk bu yàgg nga yeewu boo yeewoo ñu ne la ndekki li jeex na yaay mu ñu ne la mburu ma jeex na ah may ma ma dem jëndi loolu góor du ko def waaw góor day dëgër surtout yow bu fekkee ne dangaa bàyyi sa réew ñëw fii dégg nga yaakaar ay téeméeri nit la yaakaar ci senegal waaw ay téeméeri téeméeri doomi bakk doomi aadama ñoo jël seen yaakaar yépp teg ci yow ku ci am jaaxle ne ma woo diw wool ma ko seetal ma numéro wool ma ko responsabilité bu diis moo nekk ci sa kaw ndax yaakaar yooyu waroo ko tas ay gone yu tuutee ngi ci ñu wax ne mën a guñ dara waaw ñu ngi toll ci ñetti at ñeenti at nga war a fexe bañ tekki waaw yow yaa war a taxaw bañ tekki donc yow mi ne fii responsabilité bi tegu ci sa kaw bu diis a diis la loo yenu fii ak lu mën a doon yaakaar ja ca ëpp ca Sénégal ndax Sénégal moom ku am passeport ñu defeen tekki nga jeex na te am na yàlla kum dul teral du la jox passeport waaw nun bokk ci Sëñ ñëw fii nun ñëpp tekki nañ ba noppi li ci des nag mooy nun toujours rek lii Seex Murtada def defal nu barab bii ban xam ne ñun ñooy ñan dégg nga fu mu toll di fàttaliku ne nun xeet wi gën ci xeet yi xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci lañ bokk ci biir xeetu Mouhamed woowu jëwriñ ji ci gën a mag jëwriñ ci gën a gën a mag wenn tur dong moo ko ci am muy xaadimu rasul kooku mooy suñu yaakaar waaw. dégg nga Cheikh Mouhamadul fukki fan ak juróom la noppali ci dundam mooy fukki fan ak juróom yi mu hospitalisé euh, Maroc te sëñ Mourtada amoon na dépense ajjanaam waxaale wuñ ko waaye musta noppalu donc ñun ñun ñi fi nekk ñëpp. waru noo xam sedd bi waru noo bañ tubaab bu nu ree bu gis nga bala tubaab bi ree jàppe ko dof suñ tubaab bi mu nee gabon balay balay julli dana xool di yor xool càmmoñ ngir wax leen li leen yàlla digal digal ma ko man de koy def dañ koy ree bu gisee muy julli dañ koy ree waaye ñun tam fii bu tubaab yi ree nan xam ne nun suñu saak bii nu gàddu téeméeri bakkan la ci seen mbir aju yoo xam ne ñàkk ca Sénégal y compris suñuy sëriñ ya nga xam ne lu nekk ña ngi koy naanal yàlla te yaakaaruñ ci lu may taalib yi bu ko defee nu takk suñ tubay ca kaw lekk am leen bëgg am ko fii am ko loolu mooy loolu mooy loolu mooy delloo sëñ tubaa njukkal loolu mooy roy sëñ tubaa ndax sëñ tubaa loolu def ba mu feeñee jamono ba mu feeñee jamono ba nañ ko noppee gis nee na sëñ Tuubaa lu ma lu ma lu ma dara metti métti métti su ma déggee nodd day mel ne suñu borom da koo sekki ba mu julli ba noppi waaw waaw kooku ku ànd ak moom yaakaar ko muy sa royukaay mu sos lii mu sos muy lépp di sunna su yonent sa sallallahu alayhi wasallam nga bàyyi njaboot gu dul jeex bàyyi ay bokk bàyyi soxna bàyyi ndey bàyyi bàyyi sëriñ ñëw fii dégg nga ñii ñu yor du dara ñii matériel rek lañ yor matériel rek lañ yor la ku ci màggat ñu sànni la rawatina nag boo fi dëkkul ndax ñoom fi dool loo fi yàgg yàgg yàgg yàgg dégg nga duñ nangu mukk ngay ñoom saa yi da noppee noppee mën a jëriñu bu gis nga leen barki démb damaa ànd ak mu ñu ma romb ma romb benn asiatique mi ngi taxaw ci naaj wi benn xaw ma naar màggat nañu waaye béeruwuñu fenn ñun nag loolu suñ tubaa sàmm nanu ba loolu duñ dal ndax lii fii nii def nii dajaloo nii sarse euh, waat suñuy batari ci taalibe ci bëgg lislaam ci bëgg lu baax ci fas jom ci fas yéene tekki ah lii lii nu sëñ Murtala defal nii loolu moo tax loolu loolu dal ñoo ñun duñ dal waaw ñun fii bu soobee yàlla fi lañuy nekk ba am li nu bëgg ba ñibbi ba xoolal ci ñi weex tàll ak bi jaaw hmm? man fii bi ma fi nekkee wax naa mas na wax naa ko sama conférence bi amoon naa droit ci am nationalité amoon naa ci droit waaye il faut il faut daal mu gën a man loolu laa gën a bëgg ñu xam ko bu baax a baax waaw. Euh, mbooleem gis nga Amérique boo fa demee ñay takk seen tuba yi comme ni gars yi takkee nii welfare lañ maanaam état bee leen yor ku ci ne weer wu ne am na lu ñu lay jox lu nga xam ne ci ngay mën a dundee sa dund dong la yem ñooñu kon ko reyukaay kon nañ leen bu baax fonkaat bii. fonkaat ñoom ñii nga xam ne ñoo fi nekk di ko dundal ne ñoom ñoo fi nekkal sëñ Tuubaa barab bu nekk ka nekk yaa fa nekkal sëriñ bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku masaan yónni ku masaan yónni yow mi dem yaay iliman amrum na as bi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam di yónni booba ñetti weer la am ci lislaam ñetti weer yonent bi sallallahu alayhi ko ci xeex bu nga xam ne Omar bakar nga ci Omar nga ci biir na te euh, amrum na as dafa am xel bi ñu demee bi ñu àggee ñu ne nañ taal pour dafa sedd comme fii mu ne kenn du taal Omar na gis nga li may wax ah kii barki démb la dugg ci lislaam si si naaw Bakar ku bëggoon yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko gis nga kii tax yonent bi tànn ko ko xam na ko li mu wax nañ ko def bu kenn taal bi ñu xeexee ba gagné nañ mu ne nañ jël xam nga boo gagné da ngay jël li nga jëlee ci nga gagné mu ne bu kenn jël la nañ ñibbi Omar na gis nga li may waxati waaye bañ àggee fa yonent bi sallallahu sa la nga xam ne moom trois mois la am ci lislaam de waaye mooy seen kilifa mooy jiite waxtu yi juróom moo doon jiite julli ci bi ñëwee euh, si naama daal mer daal ne yontu sàll gis nga waa ji nga nu booleel ah ban demee mu ne bu kenn taal ak sedd bi yontu sàll daa ne ko Omar lu tax taalu leen mu ne ko ah fa ñun bëri wunu te ñëw nunu guddi yëguñu nu buñ taalee ñu xam ne ñoo ngi fi daal di waaj mu ne ko kon loolu da am nga dëkk mu ne ko waa lu tax bi ngeen gañee nu nguwoo ñu bàyyi nu nguwoo leen a bàyyi ñu jël li ñu maanaam matériel yu ñëwee mu ah, ñu bëriwul bu fa newoon di for yooyu ñu dajalawaat ñëw songaat ñu te kon nañ ñuy kaay mu ne ko loolu wax nga dëgg waaye euh, góor day dëgër lii ma leen wax nii góor day dëgër waaw te fi ñu toll yéen bu ngeen ko xoolee ñi ñi ñi raw ci àdduna mooy ñi gën a liggéey mooy allemand yi mooy japonais yi mooy chinois yi nun ñii suñ doole doole doole ju nu suñ tubaa jox mu ngi ci nangoo liggéey murid yi boo demee bi kiy jaay musuwaar ba ci industriel bi ñi ci ëpp ay murid lañ waaye duñu sonn duñu dàcc duñu nelaw duñu xiif duñu jàmbat ñu roy kenn duñu ñee kenn parce que xam nañ ne suñu borom jox na leen lu mu joxul kenn boole na leen boole na leen ak ku nga xam ne kenn amu ko muy Cheikhul Khadim kon daal man li ma leen di dénk yéen a ngi ci déjà waaw yéen ngi ci man loolu xam naa ko ndax bu ngeen ci nekkutoon du ngeen nekk fii ba heure nan leen takkaat suñu diggu ñun ñépp ca kaw du ci suure ca kaw kenn ku nekk ñun xam ne ab liira a nga tëdd ca Sénégal te walla yow dong la yaakaar bu si suba sax ordonnance am lañ ci yaakaar bu ko defee suñ jigéen ñii nga xam ne ñoo fi nekk ñoom it ñu xam ne soxna jaara mooy seen royukaay te ni ko sëñ bu sa waxee léegi soxna jaara fii la ganee àdduna lii la def du loolu nan xool moom ni mu doon dundee ak Maam Mor Anta Sali ni mu nu nga woon a jaamoo yàlla ni ko nangulee lan ni mu na muñe ndax yi ma leen wax fii léegi ku feebar dem sa kër kenn seetiwu nga wér ñibbi loolu ñoom ñoom loolu mooy seen royukaay ñu xam ne itam ba léegi si uh, waa na danaa la ko fi gën a mi xaaral ma ko ne jox la ñu ñu xam ne ñu xam ne ñu xam ne ba léegi awliyaaw yaa ngi am borom teraanga yaa ngi am mais jigéen ñee leen di jur mais du jigéen ju nekk du jigéen ju nekk moo leen di jur xadija bi mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaar juróom la ko yor yonent bi yorul beneen soxna waaye yàlla def na ñeenti jigéen ñi gën ci àdduna Khadija moo jur kenn ki mooy deuxième moo moo jur mooy mooy troisième moo jur deuxième ñeent gën ci jigéen ñi àdduna muy Mariama ah, Fatima Khadija ak Asiya soxna su Firawna Khadija mooy troisième moo jur deuxième kon kooku sooyut sëñ bi kon ñoom ñii di sunuy jigéen di suñuy rak nekk fi ñoom kooku lañu war a xool te bañ a xool tubaab te jàppale seeni boroom kër te xam ne ba léegi ba léegi suñ suñu borom lu baax mi ngi ko am te di ko jaay waaye suñu borom du maye day jaay rawatina sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moom moo ci raw moom sëñ Tuubaa mayewul day jaay mbooleem ku mas a jébbalu ci moom koo dégg nag koo foogul ak koo foog ku jébbalu sëñ Tuubaa rek liggéeyal nga laa defal ba de ba muy wax ne du ma bàyyi kenn du ma magi kenn du ma nijaay kenn xam nga loolu wax na ko du bàyyi kenn sëñ Fall laal la xam ne moom loolu moo ko moom wala li jébbalu ci moom dégg nga daal ne ko jaay naa njuréel gi jënde kook taalibe bi nga ko jëndee ba noppi nag loolu la defaatal naa la ko addiya bi atu bu nu wëyee bi atu bu nu wëttee bil iraada waaw eh, sëñ Massamba xam ne moom moo dugg na moom itam mu jéegul sëñ moom sëñ moom roqoy bu sa moom itam niki noonu kon ñun dañu war a xam ne daal ñëw nañu fii ngir wut tiranga ngir yàlla moo ne alam takun abdullahi waasia ndax ndax suuf sama suuf yaatuwut ngeen gàddaay dem dem waaw mais nag boo fa demee boo demee ba ñëw ba fii nag yow sa ndam mooy nga dellu te mel ne ku dem ci boucherie jënd yàpp te doo takk waaye ñëw fi euh, topp tubaab bi seen woto yu rafet ak seen kër yeeg yooyu nga defee dara la te du dara yi ñu yor dañoo amul relation sociale amuñu ku ñu waxal amuñu fuñ dem xaj day seen lépp waaw sëñ bi duñu royukaay duñu royukaay duñu ñuy ñee ñun dañuy dund nii nuy dundee ci jàmm ak salaam ci jàpp jàppalante ci bëggante ci di gisee ci di waxtaan noonu la ñuy dundee ba dee dem àjjana noonu la ñuy dundee ci jàmm di gën di baax rek ñun su suñ bis bu ne suñ tey ju su subaa koy gën ñun waa suñ tubaa suñ tey ju su subaa koy gën waaw ba ba dañ dem àjjana ñoom nag luñ gën a màggat gën a génn société bi ba ba leen société bi sànni bu leen société bi sànni xam nga leen fu mu leen sànnee sawara i la naar waaw ñooñu kenn du leen ñee duñu yéen kenn nan ñëw ñu jàpp ñu dof ñu nax leen jël ci ñoom leen war a jël ci ñoom jariñu ci luñ sàmm suñu diine sàmm suñu taalibe sàmm suñu bokk te bëggante ci suñu biir te jàppante waaw jàppante ñëpp ñu ma si jàppante xam ne nit koo xam ne kii dund na ba am teraangaam ba toll di mu toll te gisu xamula wax dëgg yàlla boo ko bëggee jubanti da ngay am problème waaye nag yëgoo bi ci suñ biir ànd nekk benn xam ne nun li ñuy dund du politique politique ci nga mën a bañ a sonn te gën a jëriñ waaw waaye diine moom euh, fa man yamal misqaala zarratin xayran yara wa man yamal misqaala zarratin yara fa nga yem rek foofu te loolu Sëñ Tuubaa moo ko gën nekk Sëñ Tuubaa manduk yàlla la yor waaw kenn du yeewu mukk mun kenn mënut a muus muus man ba nax yàlla waaye kenn du dofa dofit ba yàlla nax la loolu du am ah ah ah asmaaw tax li man li ma ci xam moom itam bëriwut ndax moom xam nga moom du moom ay luñ luñ dajale rek ay ñaan yuñ dajale rek du du du du du dëgg-dëgg liggéeyu sëriñ kon maa ngi leen di ziare bu baax maa ngi jégalu xam naa ni ma bëggee woon mu demee ko demeewu ko waaye dafa di dafa di man du ma wax ci Serigne Touba mukk lu may lu ma xam loo xam ne dama ko jàng wala ma jële ko fu wér loolu nag boo koy def am na domaine yooyu mënoo caa dugg domaine dugg bi loolu rek ah, ah, moo tax euh, ñi ma bëggoon mu demee ah man noo demee ah waaw ah, waaw waaw ma leen ñu leen di sant bu baax daal nañ li ma leen waxoon léegi nañ leen daal suñu xel bu baax sant yàlla baax ñun suñu mbir ca kanam rek lay jëm waaw suñ xam nga suñ mën taxaa lu mu wax ci màggal tubaab yi nee na suñ si xamati la yow ñi la yàlla booleel suñ borom da leen a defar door leen a andi àdduna nga loolu suñ borom da leen a defar door leen a andi àdduna te loolu lu wér la ndax sëñ Mbàkke Madina ñëw na Daaru Musti ñëw na ñëw na ci maam Ceerno Ibrahima xaw ma fu ko fekk ba mu fi ñëwee borom borom daaru ne ko dama am taalibe bu ma gërëm demal ko julleel ma ko maa ngi lay xamal na suñu borom xamal na ma ne ma maa diin kenn diine yi may sëñ Tuubaa ci nga bokk yow sëñ Mbàkke Madina nee na sëñ Cheikh Bombali nee na sëñ Cheikh Mbàkke Madina bi muy jullee néew bi da ko ragal kon kooku tu tànk la booba kon kooku mbaaxam da koo àndaale li sëñ bi doon wax léegi ci ay goneek mag ah, ah. kooku bam bam ba mu feeñee loolu ko sëñ mu taxaa waxee suñu borom da leen a defar door leen a andi nun ñii seen taalibe ànd ak ñoom it noonu la suñu borom defaree doon nu andi àdduna loolu nun ñëpp dañ ko def suñu bopp nun buñ jaa nan gëm ne kenn gënuñu waaw nun ñii kenn gënuñu kenn ëpp nu jom ndax jomoon jomoonu génne Sénégal waaw léegi nag li ci des mooy lii ñuy gis nii ñu xam ne xoy metu seytaane la waaye du dara mooy wata yeeg kër yeeg ni ñu mel ak waaw xoy metu seytaane waaye du dara lii dara mooy li am mooy loo jaaxle jaaxle jaaxle mu wóor la ne boo dogoo la nga dogu sëñ Tuubaa fekk la te loolu loolu ngànnaay la lu nga xam ne sëñ tubaa jox nañu ko ñu denc ko ñun ñëpp ko am te yomb ngànnaay lu am solo boo dogoo boo loo dogu boo dogoo dogu nag du caagee na nga xam damaa dogu am na nu muy deme waaw naa dogu naa du loolu dem ba sës nga wër sa xel yëpp doo daj dara man lii lu ma ci jotale moo lii lu ma ciy musal ma ne ah waaye man da Sëñ Tuubaa tas sama yaakaar sa yaakaar du tas mukk Sëñ Tuubaa nee na sama yaakaar du tas yaakaar yi ku ma yaakaar du tas waaw nu xam loolu nu xam ne it suñ tey junee suñ subaa koy dàq waaw nu xam ne it fu suñ bakkan rote ñu dem àjjana sëñ Moussa Thiel dama ko mas ne lu tax a gudd fan mun na gudd fan lu muy jëriñ ginnaaw bu sa bakkan rote nga dem àjjana <laughs> te wallahi ku sëñ Tuubaa nangul da nga dem àjjana ku sëñ Tuubaa nangul da nga dem àjjana sëñ Tuubaa nit daa toog fi moom xam nga sëñ bi boo toogee fi moom ña lu ne ci sa xel suñu borom dana ko xam sëgg nii ba mu yàgg sëñ bi ne ko looy ma yi yow ma yafirru mar'u min axiihi wa bu nga xam ne nit day seen ndeyam daw ndeyam seen ko daw yow ma tamooru sama wu mooran yow bis bu nga jant bi dégg nga ne ko jàngoo ci yow ma na doon ku la wunaa sin bi imaamihim bis bi nga xam ne dañuy wax ana ñaan ak diw mu ne ko ah kay mu ne ko bis boobee commencé la nga dem àjjana. est-ce que. yow mën na ku la unas bi imaamihim jàng ko ci mu ne ko waaw mu ne ko bis boobee buñ ne ana ñu ànd ak ana ana ñu ànd ak Cheikhul Khadim sëñ Mame Lamine Diop sëñ Mame Lamine Diop daa toog mbooloo nee di xalaat bàmmeel ak bu ko bu ko bu ñaari malayka yi ñëwee ci bàmmeel di ko laaj muy wax fi mu ko xalaatee mu daal di def awooy daan daal ne layta layta shi'ri maada yakunu jawaabi in ataani bi turbatil malakaani ma ma man lu may tont bu ma bu ma bu ma bu ma ñaari malaay kii laajee loolu moom moo ko bi mu toogee ci fi mu toog la ko xalaat ko def woy wi noona ni daal di jóge fa sëñ bi daal di ne sëñ bi nee na am ko fa wuy nee nañ ko gën na fekk daal di jóg dem naka mu dem sëñ bi daal di xasida mi ne lawul mahfuus jox ko ne ko boo demee nee leen seen tontu ci bàmmeel la ngoog moo tax sëñ Tuubaa kenn ah, ngi leen ñu ngi leen ñu ngi leen sant bu baax ah, ñu ngi leen ñaanal bu baax ah, ñu ngi leen ñaanal bu baax a baax euh, suñu borom boole nu dimbali waaw suñu borom boole nu dimbali man man nag damaa damaa texe man na fi dool jàpp naa ne man naa ci sëñ bi fi dool wallaay li ma gëm saabu li man mooy sama ngëm man mooy ne sëñ bi mën naa ci moom daal waaw loolee gëm naa ko gëm naa ko waaw waaw moo tax nag euh, maa ngi leen di ñaanal bu baax di di dugal sama dugal dugalaale sama bopp ndax man suñ tubaab maa génn gis ko mu jox ma loxo ne ma nga bëgg nga nekk sama xarit wallaahi ak suñ tubaab suñ Murtala bii moo ñëw keer at moom fa andee suñ xaas yi muy jàng si man maa ko yóbbu sama oto boobaa am na kuñ ko booyaloon bu ñëw suñ waajee ba toog ci saal bi nii du ñëw sëñ si ku ñuy wax sëñ Cheikh Mbaye ja jaay sëñ Sam sëñ Sam sëñ Fallou waaw sëñ Cheikh Mbaye moo ma ne yow ginnaaw taali nga yor ngor del ñëw yóbbu kii sëñ bi kii kii day sabot man booba xelal laa waaye yàlla ci ndimbalam xiir na ma ci balaa may dem naa jënd warga ak suukar ak ak évian yo ma demee sëñ bi ma yóbbu daam ñuy suul foofu imam Chafi Seyd Zeynab ak Sidna Hussein foofu lañ leen suul léegi moom barab yooyu lay dem di ñaan damay damay taxaw damay gaari ci bunt ki mu dugg dafa ñaanal bu pare mu bu ko ci hôtel mu ñaanal ma ñibbi ñaari fan troisième jour bi laa gént gis mu jox ma loxo ñu damaa bëgg nekk sama xarit waaw. loolu yaakaar naa 74 74 waaw. kon ma man sëñ bi sama xarita moo ko wax. ah moo ko de damaa bëgg nga nekk sama xarit jox ma loxo jox loxo barke sëñ Tuba waaw ci ci ci waaw ci loolu nag ci laay ñaan ñëpp yàlla may ñu fan gudd yàlla may ñu wér yàlla may ñu taalibe guñ nam yàlla musal ñu ci ndog nu bokk ci ñi nga xam ne bu ëllëgee sëñ bi dañuy nu bokk ñu nga xam ne nu mel suñu mbé suñu njaboot dana mel nu ko gën waaw yàlla defar suñu mbir te ñi ko fi nekkal ñëpp ñëpp ñu nag sëñ bi yëpp ñi ca Sénégal ñëpp suñu borom baleen fi baleen ko bëgg defal lépp ñu defal ko ko ci ci ci saxaaba yi sëñ Tuubaa yi nga xam ne ci ñim gën a gërëm la bokk waaw waaw te man gëm naa ne dana ah, ngeen ñaanal ma nag. ngeen ñaanal ma. ngeen ñaanal ma njagam sëñ Saliou Mbacke mu baax ma radiyallahu anhum sëñ Saliou Mbacke mu baax ma radiyallahu anhum moo daan wax ñaanal leen ma maa ngi leen di yalwaan ak ñaan. maa ngi leen di ñaan maa ngi leen di yalwaan ci seen taalibe bi. seen sëñ Touba jaral li mu leen jaral coono bi ngeen di sonn ngir jëm sëñ Touba fi ngeen teg sëñ Touba li leen jaral ni ngeen ko bëggee maa ngi leen di ñaan ci biir loolu ngeen tibbi ci ñaanal sarax ma lo koy ñaanal di ko ñaanal sëñ yàlla may ko wér amiin itam naa leen ko yéen ñëpp kenn ku nekk fa nga na nga bëggee sëriñ bi lam la jaral fa sa taalibe tool amin amin amin amin amin yalwaan naa leen ko waaw yalwaan naa leen ko yéen ñëpp bu ngeen ma bu ngeen ma gisu waaw ngeen ñaanal waaw mbooloo bi ñu ñaan leen rek bu sën bi ñaanee ba pare ñu may ko bala kenn di jóg rek mu jàll jàll bu sedd yëg àgg si kaw sën bi la def ñaan. اللهم صل وسلم تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتسلمنا بها من جميع السعادات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها اقصى الحياه من جميع الخيرات samsonsa na ginnaaw bi nga xamante ne dafa bari woon te faw naa bi andi kan la kër yàlla wala na bi sa xayma yàlla xayma اللهم نجينا مع الناجين ولا مع الهالكين يا رب العالمين نسألك أن تردنا إلى أهلنا صالحين غانمين فرحين مستبشرين لا مقهورين ولا مغمون برحمتك بلاك أبد نحلم كل إنسان تعلق بها فاتحا أموره اللهم سلام الباب المفتوح صلاة تعجل لنا بها فتح باب الفرج والفتوح اللهم سلام الباب المفتوح صلاة تعجل لنا بها فتح باب الفرج اللهم سلام الباب المفتوح صلاة تعجل لنا بها فتح باب الفرج والفتوح اللهم سلام رب المغفور شاف العيلة المفرج الكروب اللهم سلام رب المغفور شاف العيلة المفرج الكروب اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لأوليائك يا فتاح يا الله افتح وهب يا رزاق يا ملكي افتح وهب لي ورزقا إنا فتحنا لك فتحا بإذن لك اللهم ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصر نصر نصر من الله وفتح خير من المؤمنين اللهم لا تدع لنا من بال إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دهن إلا خديته ولا مريضا لنا شوي ولا حاجة من هاي الدنيا ولا حاجة اللهم اجعلنا من أعزوان في كل يوم في كل خير تقسم بها من نور تهدي بها ورحمة تنصرها أو رزق تبصرها أو شدة تصرفها أو معافاة تمن بها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا بعافية من كل بل ولا يبرأ بتمام العافية ولا يبقى أيضا دوام العافية ولا يبقى بتمام العافية قلت بنا وخينا وكنا وهب لنا حسن ختام ربنا وصلي على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة barke Seexul Xadiim